mu jox Cheikh Ganna mu def lim ko sant ci ñaar fukki bayit yi ak ñaar kon sëriñ Akassa Samb la ñëpp di déglu ci xasaayit sëñ Tuubaa yi hamdi wa shukru liman bihi kulli saara lu hëridin duunu suqutin inda sar saara hamdi wa shukru liman kulli bihi saara lu hëridin duunu suqutin عند سرسراح له زنائي وروان بازغة مصعد لي من بني ديمان أنصار للاح كل لداح أبار مكرمة رسول وفي أجم من سارا إن الذين إلى سرسار خرق سبع شارة فارا سالة فارقة فارقة دار أو سارة نبي رسول خير عبد وزيد خليل حبيب مثله ليس يغلى نوح نجي خريب شاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي سعي ومشلون بشير لمن لله بالحق يسون نسن بلا خسن علي معلم شيخ بلا من خرام لا ينهى شيخ بلا من خرام لا ينهى شيخ بلا من خرام لا ينهى نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو الامر ناحي نزل خير منه نقب رقيب مسلب مشأسب مسلم العسل ومحنا محسن تيب حسيب سعتاء مخدم هو ناس هو الميزان والمكان هو ناس والميزان والمكان هو ناس والميزان والمكان نبي له شأن حسيب بين هو المستعى المختار وهو المعين نبوتا قبل البرايا خذ البرايا قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا خل نجلد لو شبخوح ندد في تنصل نجد مجد المواصل من لنتا معلى المبدال ومخل مغلد نفالي ويبخائي وفوزي بلغنا بكبني خديم المصطفى تتبين نزلتي في سري والجهل بدت به قد الرحمن سر الحسن نويت الرحمن في خلمتي لمن الآخر نساخة من ليس رسول نما لسانا نما سانا نما لسانا نما سانا بالنبي لو أسدا وسيخة الآخر الذي يتكهن نهل وحيد القهر hong lang daa bihi furaade wa masne adbaru suma liinu nafaftu bihi ardan asida safat alay salama غير مخنن مكن نصفت كل ابن لقوي تهرب وسنتها إن شاء ربي أبين نسمت بكوني عبد ربي قديم وسفى بعمري ودار وطن نويت نويت نويت